asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu eh, ñu ngi nuyoo di ziyaara di ñëw rek ci lu tuuti rek ci loo xam ne xew na ci suñu match démb ak Égypte ci defet bi ñu fa jëlee eh, kàddu yi nag lu dara lu dul rek am am mettitu xol am naqar naqar gi mooy eh, dafa am loo xamante ne nii dafa dafa jara bàyyi xel olof njaay day wax ni la nga doon def ba am lii bul ko bàyyeeti jig na la euh, Coupe d'Afrique bi passé dafa am koo xam ne réew mii réew mii di senegal ñi ngi ñiy yëngu ci wàllu football yépp yépp xam nañu ko muy Thierno Youssouf Sissoko bu Parcelles vingt cinq amul amul kuy yëngu ci football ci réew mi ak ba ci biti réew ku ko xamul amul coupe d'Afrique bi passé ci lu wér moom la ñu engagé mu assuré sept match si yépp man mii ci ñi ko doon jàppale ci liggéey bi laa bokk donc yaakaar naa nag euh, euh, am ndam ci sept match donc donte yaa ngi am nul mais amuloo ci jëlewoo ci défaite rawatina éliminatoire yi nga xam ne huitième de finale la tàmbalee ba ba ba finale nga jël coupe sëriñ su bëri fii taxaw ne Sénégal ñii naan du dem quart de finale ñii naan demi finale fa lay yem ñii naan du jël coupe ñu sonn ca lool ba li yàllay def mu def ko bu ñu demee ci tollu ci éliminatoire coupe du monde war faa dem pour participer ci ak alalu réew mi ñuy jël yëpp di ko dépenser ci sport am na loo xam ne euh, waxuma sax léegi ministre yi loolu sax euh, euh, dépassé na leen. mais président de la république ci boppam mooy Macky Sall moo war a jël responsabilité ci yu mel nii ndax dafa am loo xam ne réalité la réalité la du ay caaxaan ñaan du caaxaan te koo xamante ne nii yàlla def na daanaka sax li muy yëngatu du rek sax football du rek sax football parce que euh, mi ngi ci am am na yeneen mais yàlla dafay maye dafay maye. te li ma wóor mooy ne moom football moom la ci yàlla may moom la ci yàlla may loolu moom ñoom ñi ñoom ñi nekk ci biir euh, fédération di ci yëngoo yépp xam nañu Thierno si Cissokho xam nañu ko donc nag euh, man li may li may wax nii li ma ci li tax may ma wax ko naqar parce que en tant que sénégalais nekk supporter Sénégal buy football du ñu am jàmm donc euh, wàññiwul dara parce que euh, même bu ngeen demoon ci moom mu laaj leen milliard par match milliard par match jar na ko parce que li mu wóor ba wóor ba wóor mooy euh, li muy li muy gañ mooy ëpp li muy perte ku mel noonu boo ko amee ci réew da nga koy fonk danga koy téye waaw da nga koy fonk da nga koy téye réalité la ñaan dëgg la parce que loo xamante ne nii boo ko defee. ci ñi nga ci ñi nga àndal yàlla dooleel leen jox leen force sa adversaire ñu néewal seen doole ba nga mën am ci ñoom ndam loolu doo ko caaxaane te euh, dañoo am benn habitude ci lu ñu xam mooy ne bala ñu faa dem seeti ko rek jaaxle dañuy dañuy jaaxle dañuy dem ba dernier moment ñu jaaxle soo faa dem mais Coupe d'Afrique bii man waxtaan naa ku nekk ci biir fédération bi du ma tudd tur parce que secret ba maanaam sutura baax na avant Coupe d'Afrique une semaine avant ñu dem waxtaan ak moom mu ne leen bàyyi leen ma seet ndax dinaa ci mën a engagé walla wala déet seet ko ba mu wër ko ni mën na engagé wu mu engagé wu di assurer trois matchs yu njëkk yi ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu génn suñu poule huitième finale quart de finale demi-finale finale yëpp ñu di ko liggéey match par match match par match même match de poule yi chaque équipe match par match ba yàlla def nga am coupe d'Afrique léegi nag boo demee ba yu mel noonu nga am ko ci réew kooku doo ko doo ko doo ko boole ci lépp looy def waaye boo jaaxlee rek ngay dem loolu rek laa ne woon naa ko wax ah euh, en tant que supporter rek te am naqar rek. waaw buñ ko sàgganee Égypte dana ñëw fii mardi stade sunu sunu Sénégal fii fekk ñu fi ñaf ñu ñu toog nag benn yoon bañ dem coupe du monde jàmm na ñooy am na yoo xam ne kenn du ko am ci réew di ko caaxaane président Macky Sall sax man lay adressé parole mooy na jël sport bi à mai parce que ñii euh, am na ci ñoo xamante ne ni sax seen seen bopp rek lañ lañ fi nekkal de seen bopp rek la ñu gëm. waaw ñu ngi encaissé seen xaalis def ci seen poche donc ci turu réew mi xaalisu réew mi kon lépp looy génne budget di ca def mu jóge ci poosu sénégalais yi la la cay jox ndam da koy fonk da koy fonk loolu rek lañ amoon ci lu ñuy wax bëgguñoo dugg ci yenn détails yi xam nañ ni lu baari ñu ngi ko seqaloon yépp Coupe d'Afrique bi ba euh, mu jeex tàkk ñoom xam nañu xam nañ salaamaaleykum wa rahmatullah